dalli nag jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a di la raw waa axlu BRIC duggati nañ ci ak guuta gannaaw seen problème yi fi amoon ci jamono yi moo di problème classe ñoom ak ki nga xamante ne moo di Ngaaka Blindé tey jii ñoom nit ñi xëyee leen leneen moo di ni gannaaw ba doon publier ci di xamle li nga xam ne moo di seen concert bi nu war a amal ci le trois juin bi nga xamante ne ca lañ jëm ñoom ñooñee di ñoom ñaar di kii di Arafat ak Deiza ñoom ñooñu. ñoo deman di publier benn photo boo xam ne ñu ngi nekkoon ci lii di wàllum Xbet di leen eh, mel ni ñu leen di remercier remercier mu di ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo di seen sponsor waaye daal loola nekkul la nga xam ne jamono jii moo leen ca indil ak jàmm ndaxte fële ci Facebook nga xam ne fa lañ ko publier woon wax ja ma nga ne tulleeg ma le ci ay commentaire yoo nga xam ne lu ne yàkkees na leen ko fa ndaxte ñu bëri dem nañ ba ci ni leen campagne diabolisation wala campagne de désabonnement benn jëlewoon ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias di ko sonal yéen ñii leen ko war na defal ndaxte yéen amalu leen njëriñ li nga xam ne moo di askan wi ndaxte lii ngeen fi nekkal di ñi nga xam ne wàllum kartum xaalis moom lañ doon publier moom la dooleel ci réew mi mu di wan expert yéen ñii bu dee ñooñu ngeen di jàppale ñooñu ngeen di defante sponsor bu boobaa jeunesse bi nga xam ne a ñëw ñoo war a nekk ca concert ba ñoom kon fan lañ jëm bu dee ci loolu ca lañ bëgg a tekk seenu tànk mu di loo xam ne jëm na ci sujet yoo xam te ne du yëpp jëmale fenn li nga xam ne moo di lii di askan wi ca booba kii di jeebaa moom dem na man na fële ci ñi nga xam ne ñoo di yëngutu ci wàllu lii di formation professionnelle bi nga xam te ni kii di le président de la république moo ko fi tegoon mu di lii di 3FPT ñoom ñooñu nag kii di kii di jeeba moom rafetlu na lu mel noonu ci li nga xam ne moom la ñuy def ci lii di emploi des emploi des jeunes bi nga xam ne ñii di waa 3FPT PT